salaamaaleykum yéen ñi ñuy seetaan à travers Leral TV ak les internautes aussi maa ngi leen di nuyu ku nekk seen tur seen sant ma la sista ñu ma tey nag maa ngi fi nga xamante ne moo di Ouest Foire si émission bu bees tàq les bons coins les bons coins nag boo ko déggee mooy maanaam duñ xamante ne yor nga ko daal la koy fësal tegal la ko xamante ne moo di Marème Bisso euh, bi nag mu ngi tudd la Paradise du ma def li di ànd ak yéen daal di daggu nga xamante moo moo nekk ci biir ànd ak sama caméraman bu ñaawul bi daal di dox nànk daal di dugg ci biir fësale li nga xamante moo nekk ci biir biir asalaamaaleykum na ngeen def bàyyi ngi ci jàmm ça va fi may boutique Paradise ah loolu yoon la na nga def ça va alhamdulilah baa yaa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla alhamdulilah ça bien merci na ça va alhamdulilah maa ngi si jàmm. ñu ngi sant bu baax. Euh, nag ñun la waa Leral TV ñëw seet si leen tey fi nga xamante ne moo di boutique Paradise comme ni ma leen koy waxee saa su ne rek si seen émission les bons coins tey nag ñu ngi fi nga xamante ne moo di Ouest euh, Foire si taliwaale bi juste si côté débuté bi ñoo seet si ki nga xamante ne moo di Mariam Bousso si biir boutique am ak euh, ay ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyam daal. du ma defee lu dul daal di tàmbali liggéey bi rek daal di laaj yii ma fekk nit nii lii mooy lan la <laughs> salaamaaleykum maa ngi euh, nuyu ñëpp di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw seet si waa Paradise Juice tey euh, lii nag ay fruits yu ay fruits yu en fait la mën a wax ay fruits yoo xam ne dañ ciy defar xam ne naturel yoo xam ne raxul dara. ah bon jus bio. 100 pour cent naturel amul sucre ajouté amul ndox. ça dépend ci vous ça dépend ci ni nga ko bëggee en fait boo bëggee mën na la rajouter le sucre boo bëggee mën na la lait en poudre ou bien liquide. ça dépend. d'accord fekk naa ngeen di defar li nga xamante ne jaxasi gis naa leen daal ngeen jaxasi ay seen i fruits yi daal di koy def seen biir ka ma ma ma doon laaj la lii boo ko bëggoon mu nekkoon jus tey nan nga koy defaree. boo ko bëggoon mu nekkoon jus waaw sa euh, da ngay da ngay xool ci fruits yi rek am nga trois fruits au choix boo ko bëggoon da ngay ñëw ñu defaral la ko ci mixeur bi après ñu mixer la ko. est-ce ma defaral moo xool ban ak ban la. amul amul amul benn problème amul ban la noonu. bi melon la bi papaye la bi melon. melon ak papaye. après def si tuuti ananas. lépp naturel la quoi. en fait. def ci glace lépp naturel fii nii. Ah. <laughs> paradise juice. paradise ngi nii. lépp naturel. fii daal ku bëgg a doxantu ñëw naan jus boo xamante ne jus bio la naturel. fii ngay doxantu fii ngay da ngay boo fi duggee da ngay mel ne yaa ngi àjjana. yaa wax lii. maa wax lii. waaw ah, kay. àjjana bu ndaw daal moo ngi nii daal waaw léegi man nag maa ngi defar kiwi euh, laay boole. waaw kiwi laay jël ak euh, prune. Mhm. boole ci euh, raisin bi. raisin mi nga ciy def nii. waaw raisin bi laa ciy def nii. waaw ñu gis la tamit nga def ci glace ma yaakaar ne jus bu pare ngeen ciy def glace wala boo leen koy defar. buñ koy defar lañ ciy def glace. ah doy na waar. waaw buñ koy defar lañ ciy def glace. léegi dama ci yokk dama ci yokk pastèque. lii tamit xaal la aussi. xaal waaw maanaam xaal ni nga ko waxee sax noonu la xaal. <laughs> Ah, nii boo ko gisee xam ne ni tout est naturel ici en fait. waaw lépp a naturel. gisoo fi dara amul dara amul amul dara waaw amul dara dara ni mu ñëwee noonu lañ koy dugalee noonu lañ koy mixé. waaw jox la sa jus bu naturel nga naan ko. léegi dañ koy yóbbu si machine bi daal di koy comme ni ngeen ko gisee nii dans combien de minutes lay def affaire bi kii nii. Hmm, yàggul benn benn 30 secondes wala 40 rek ah. 30 secondes dafa gaaw waaw pare na mu daal di pare nga bëgg nga am. ah kon lii c' vite fait kon nit mën na nit daal bu ñëwee fii di def commande mën na toog ngeen defar ko vite fait daal di jox. c' vite et bien fait kay. Ah et bien fait te te ñëpp mun nañ ci naan ah. Ah. muy muy muy diabétique bi muy sportif bi muy. ñëpp en fait mun nañ ci nan en fait waaw comme ni ngeen ko déggee rek ñi nga xamante ne duñoo jabet ñu tere leen suukar donc mën ngeen ñëw fi daal def ko seen commande du jus yoo xamante ne mooy jus bio la amul dara li nga xamante ne yokk nañ ko si amul courant amul sucre amul ndox buñ si yokk donc mën ngeen ñoo def fii seen i commande tali fii neex naa xam tali waali bi la en face débiterie bi mi ngi nekk waaw ku fi bëgg ñëw moom yomb naa xam trop mi ngi nekk euh, juste taliwaale bi boo ñëw bi si dibiteri bi ñëw jàkkaarloo léegi jus bi nan la tudd. jus bi nga kii nii léegi jus bi nan la tudd. bi bi baaba la tudd baaba. Ah. ah ñoo ko déggantoo jus bi tudd baaba. bu bëggee sax yow mun na la defaral jus ah. ah jus ñu ma. Oh. <laughs> baaba kay tur la de baaba tur xam de. boo bëggee sax yow mi mun na la defaral jus. yaa wax lii maa la ah, bii nag mooy ban bii nan la tudd. <laughs> bi mën ngeen ko tuddee nii. waa doy na waar de. <laughs> bii ngeen boolee ban ak ban ñu jox la couleur bi. bi bi. ngeen boole papaye la ak ananas ak lait lait entier. ah d'accord moom ngeen comme ni ngeen ko gisee nii jus baa ngi nii yokkuñu si dara dara dara dara naturel na macha allah. pomme bi nga daggate ni aussi. pour décoration bi. yaa lépp si décoration bi lépp ngi ci paradise ak ah, boo déggee paradise da yow xel yëpp lay dem ci àjjana. donc boo déggee fii daaw dafa war mel ne yaa ngi àjjana. yaa wax lii maa wax lii man de gis nii yàgg na. mu ngi jël raisin bi di ko si ak pomme la boole nii. bi nan la tudd. bii ñu maa la tudd. ñi maa la tudd ñi maa maa ngi nii paradise ngeen koy amee saa su ne boo leen fi duggee rek jus façon bu nekk boo bëgg pomme ak banana ay fruits yi rek ngeen fi gis. ma ma séen am na leneen loo xamante ne séen naa ko ci biir bitik bi mu jaaxal ma lool lool lool te bala maa génn fi foog ma laaj leen ko gis naa fi carotte gis concombre te man loolu moom ah carotte ak jus maa ngi koy doog gis. du ma daal di def lu dul ngeen expliquer ma rek carotte bi ak bi moom. ak ay détox comme ça ah. bu ñuy bëgg si quoi ak concombre bi yooyu. ñoom ah bon kon même boo bëggee jeex aussi mën nga boo ñëwee fii nii am na yoo yoo xam ne day lakk graisse lakk loolu yëpp comme concombre bi ak yooyu. léegi boo bëggee am yaram nag. bëggee yaram mën nañu defal ay protéines fii mën nañu defal ay protéines ci fruits yi quoi yoo xam ne dafay may yaram. ah kon yéen ñu ko yéen a ko déggandoo. comme ni ngeen ko gisee noonu laa ko gisee man it euh, ñi nga xamante ne bëgg nañu am yaram na ñëw fi def seen commande jus ñi nga xamante ne bëgg nañ jeex aussi wala ñëw fii tamit di ngeen am seen jus boo xamante ne boo leen ko naanee rek daal di jeexal seen yaram bu ko defee da ngeen am taay fii comme man gisoo leen ah taay fii day fay de waakee suñu émission bi nag nii lay demee saa su nekk waa les activités ñoo leen seesi woon comme ni ngeen ko gisee nii rek euh, boutique Paradise donc luñ def lu dul ngeen daal di tàggatoo waaw ñi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan à travers tey Leral TV. waaw maa ngi maa ngi leen di bëggee di leen di leen ziar di kontaan nag ci set bi ngeen seet si waa Paradise Juice di kontaan trop fii moom comme ni ma la ko waxee rek. àjjana àjjana bu ndaw la. lan ngay wax waa waaw waa Leral TV moom maa ngi leen di genre seen émission bi nice na trop parce que mën naa ne di ngeen di génne ñoo xam ne fasaguñu. suñu émission bu bees tàq bi les bons coins. Ah, bees tàq bi moo tax moo ko les bons coins <laughs> fépp fu bon coin ci Sénégal da ngeen leen génnee. waaw di leen sant di leen gërëm baax tamit pour euh, di di ci yokk tamit euh, Paradise Juice boo bëggee toog sa salon mun na la livrer. ah da ngeen def tamit livraison da ngay toog fi nga toog sa yu ñëw fekk sa la bi sa biir salon nga daal di naan rek daal di pare sa télé di di di di enjoy daal. yaa ngi Paradise ni ko Gambien bi waxee. Ah. boo bëggee mun la livrer à domicile. seen numéro téléphone. livraison bi di 77 474 97 97. 77. 494 97 97. comme ni ngeen ko déggee rek <laughs> voilà nii lay demee saa suñu nekk suñu émission les bons coins beneen endroit yi nga xamante ne bëgg ngeen ñu fësal seen yi nga xamante ne seen produit yi ngeen di jaay du ma def lu dul daal di nuyu ki nga xamante ne moo ma solal fii tey gënee ma fii moo di di di Bella mu ngi dëkk juste si derrière euh, gendarmerie bi képp koo xamante bëgg nga dem foofu rek mu daal di lay defal baax baax bi da ngay daal di doxantu nag si ginnaaw gendarmerie bi foo laajte koy won képp koo xamante ne bëgg nga ñu fekk la sa biir coin wane li nga xamante ne fësal li nga xamante ne moom ngay jaay da ngay daal si numéro bi nga xamante mooy su ko defee dañuy doxantu nànk daal di fekk sa boutique daal di fësal lépp li nga xamante ne moom ngay jaay fii lay xewee fii si Leral TV saa su nekk ma leen jox dig daje fii ba beneen yoon